mbokk yi dal leen jàmm ci li gën a fës ca yëglekaay yi ñu commencé kook la témoin yéenekaay mi des waat ca politique jë Karim Wade mi nga xam ne kenn tegu ko bët laa la wax ci biir réew mi donte nag jamono ji li des ñu egg ci élection présidentielle yi bareetul waaye Karim Wade ak i naataangoom tegaguñu lu leer laa la wax ci kanamu sénégalais yi électorat am nag ba léegi si mu ngi nekk fa nekkoon waaye am na ñoo xam ne ñu ngi ci biir PDS laa la wax ñu ngay fippu dese pour mu yegg si mi ngi lancer nak ay message depuis Doha li ñëpp di laajte nak moo di est-ce que PDS dina bokk ci élection présidentielle yi di ñëw ndax seen doxalin gi nak ñëpp la jommal le regard yéen kay ne Amadou Ba kay mooy dox fi mu ci kaw Boun Abdallah Dionne ak mam boy Diao kenn ku ci nekk la la wax daf la tégal 16 daan la bu dee Boun Abdallah Dionne moom ay collaborateur am la Amadou Ba mu mujjee récupéré tollu nañ ci 5 délégués régionaux ñom ñëpp nak fi mu ñu ngi liggéeyal Amadou Ba rocc la leen def la la wax indi ci camp présidentiel bi mam boy Diao tamit waxi nopi lu ëpp ci ay responsable am fi mu Amadou Ba mu ngi leen di ronqi benn par benn l'observateur moom def taxaw seetlu ci gouvernement bi nga xamante ni mu nekk ci gouvernement bi yéenekaay bi ne beneen réalité bi benn bokk yaakaar di dund jamono ji moo di di bàkku bu demee ci terrain bi xam ne Amadou Ba

ma gis démb wuuti loolu ak Ousmane Sonko ma ma daan gis ak bii sénégalais yi di njort tey la Ousmane Sonko gën a am état de forme bu baax Habib Sy di dalal xelu askan bi ne Ousmane Sonko jamono ji laa la wax mental bu baax la yor noonu la ko Cheikh Tidiane Dieye tamit xamle yéenekaay bi sax taxaw na seetlu ci candidat bii di Bassirou Diomaye Faye avenir ak ex-Pastef dina mën a yóbbu nag appareil politique Ousmane Sonko bii ca kanam li wér daal Ba ca Matam lu tolloog 181 867 parrain moom lañ ko jébbal ni ki démb te kenn defu ko nag ku dul Ngom ba noppi nag di ko dëggal ne ko gis nga Matam titre foncier président Macky la na sa xel daal Amadou Ba di ko tontu ne ko li ma waxoon dëggam naa ko waxoon nga ma ne ca Matam Benno Bokk Yaakaar ñoo koy gañe te nga def nii nag mën na koo firndeel léegi fa yéene moom def taxaw seetlu ci enjeu politique yi nga xamante ci la ñu ji ci candidat kenn même bu dee président Macky Sall nag lu mu mën moo ngi koy def ci Amadou Ba dèjà defoon na ay tournée pour présenter ko nag sénégalais yi booleeg nag jël moyen état bi yépp jébbal ko ko président Ousmane Sonko génnee fële ak candidat xam ne fi mu toll nii am na jafe-jafe ak yoon ndax na mu jiital Bassirou Diomaye Faye waaye ni mu koy présenté ni koy askan bii di accepté presque benn la fi mu nii nag kenn ku ci nekk ci ñoom ñaar loo mën rek yaa ngi koy na ko deret fan yi la ñuy yéenekaay bi ne yoo xam ne am na ko ci kaam lii moo tax moom dafa ànd ak trahison te loolu président na koo xam bokk na ci nag li ko a naqari moom président Macky Sall ne bu nekkoon moom nee na regretté wu dara bu démb doon tey tamit la état bu Sénégal defoon loolu lay defaat libération nañu fi mu nii laa la wax retour de parquet bu ngi mel nettul leeg ci kaso yi moo xam nit dof Colin Faye Sat ba ci El Baro ko nit dof moom ni ki tey ji la ñu programmé nag audition am donte parquet bi mu ngi demandé nag ñu mandat de dépôt ko bu dee française bii nag di Colline Faye moom dañ ko jàpp ci audience ba amoon ca cour suprême mook yeneen i juróomi nit fi toll nii nag nee na dafay grève de la faim yéeni bi ne keneen ku ñu jàppoon te ko bàyyi ko mu ñibbi moo di Jóob Taïf décembre lañ ko jàppoon waaye ni ki démb lañ ko relaxé bu dee oustaz Assane Seck ay avocat ñoo ngi demandé liberté ko ko dee rek ñu xaar xool fan la wànnati bu jekki yi ba subaak jàmm incha allah